bismillahi yalmuluhai bila manahi wala intihai bismillahi yalmuluhai bila manahi wala intihai حمدا لربي خيم ربي قد رم قلبي بالاقتداء لو شكري بلا قهوري وهو نسيري منه فدائي
تعالى وقدر فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفتاه وهب لي وارزقني من كل الآن ضيقي أزلا عاجلا بالبشر مع مرد حتى أقيم لدين الله أركانا يسير جوعي لتوبا واحمني وقني أدورا وتجب لي سما إسكانا كالسماء والأراضي والهواء بها مشارك ليروت مشكوانا أجيب أسلي بسلم حسن دي محمد وتولي فاتم دعا خديم يعني تعالى توفيق yàlla bu ñu ci wax ci waxtaan wi loolu dëgg yàlla bu ñu ci jublu lor ki ñuy ki ñuy tudd aw turam ku ñuy tudd turam it yàlla bu ñu ci jublu lor ko. yàlla na waxtaan wi di leer ci moom di tawfeex ci moom di di tawfeex ci noonu ak ñi koy dégg ñëpp rek kon maa ngi waxtaane kër maam jaara ga taarix ba. ok sëñ Fallou Ndiaye ak takkusaan la ma woo suuf ne ma man de damaa toog ci kër sëñ seen benn baay bu ndaw rahimahullah ne ne ne sama xel am xalaat bu bu ci na toq ne ko lan la mu ne ma taxawal kër jirim yi ma ne ko ah ma ne ko ah loolu day fikratu nabile la xalaat la bu noble de waaye man day man de newoon naa ba ba ma jógee keer duutuma bokkati ci mbooloo ndax man ni may engagé woon dafa métti ci man waaw keer keer ansaar bu fa nekkoon ansaar xadim dafa yaa sonoon lool nit ñi moom dara ñoom nit ñi nit ñi moom da ngay dee wett rek ñoom ñu ñu lay ree waaw daal wax dëgg yàlla école bi ak lii lépp wax naa ko ci ab baat ne ko man de Fallou Ndiaye saa booy démissionné ci guddi ga nanga ma ko wax bu démissionné ma ma bàyyi xam naa loolu dara ñëw ba xam moom def na comme déet wax ji nag moom moom ma ma may wax moom su ko déggee man ne ne dara amu ci waaye nag awalam yakfi bi rabbika annahu ala annahu ala kulli shay'in shahid yàlla moom seede na ab suufiyanke moom soxla wut nit ñi seede ko waaye nag nag charia islam yi moo ko woote rek ndax alxuraan ko wax wa ashidu la wax waaye nag la yàlla waxoon mu amut tut moom xanaa zaway addil min ko moom loolu amut moom maanu ku maanu koo mën a koo mën a seedaloo amatut moom xanaa xanaa da ngay seedaloo kon njanaaw yi xanaa ak garab yi ak suuf si waaw ñooñu de ñoom xanaa ñoom danañ wax dëgg ak sa cër yi cër yi moom danañ wax dëgg bis ji waaw kon kon kon ñooñu kon. doy dañ seede kon sëñ Fallou Ndiaye taarixam nag ak man bala maa dugg ci kër maam jaare gi sunu waxtaan wa newoon na ma ànd nañ ñaar fukki at ak juróom-benn man nag wuñu mu ko de moom moo wax loolu xanaa ko xanaa ko takk na ko moom am njaayeen la mën a takk ndax man danaa takk lool waaye nag yu am njariñ laay takk xaw ma sant xaw ma tur ban dama takk yooyu de waaw lépp lu ñu lu amul solo ci man rek man du du ma téye waaye nag benn baat boo wax nag juróom fukki at mën naa ko téye du ma si téye yàlla ma koy téyel waaw man damaa takk lool moom mbir boo xam ne borom fàtte na ko. li ma la ñuy ànd nañ ànd bu dama ko gis keer rek maa ko fa jiitu ay at yu bari mujj gi mu ñëw fa rek ma gis ko nag jëmm ji neex ma ma daal di koy safoo ci guddi gi mu ñëwee rek. am na lu ñuy tuddee bas mu xeeti xeeti miskit la boobu ab sedd la nii nag ah ma dem jëndi ko indi ah sedd na de te te nga ko sedd ba xam bas mu ba day fàttiwul ko. tur ba xeeti bon boobu la day gudd nii mel na baaraam gu gudd nga xam ne xorom lay saf du saf suukar ma ne ko ah te nga ko sedd waaw ba safoo ko waxoon naa ko bisit ci ànd ba ne waa yàlla de dafa mel ne damaa fii rek jaam ñi ndoxee tuuti de dana da nga am loo xibaar ci ci man te ku la ko laajoon doo ko xam. am na fa sax kër am na génn boo xam ne nii su ma waxee day du mooyu nangam mujj la mu dikkaat fàttali na ma ko loolu fàttali na ma ko waaw loolu la. maanaam ñu ànd ànd bi man man man man ngir yàlla laa ànd ak moom man. benn seen benn mbokkam Ndiaye Ndiaye bas naa wax ne yéen ñaar ñi de la suñu mbokki bu soo waxoon ñaar ñoo gis ñu ànd am na luñ bokkule. ma ne ci sama xel man de leen man de man de leen laay wax man ku ma àndal sama jikko laa ànd ak yow. sa suñu mbokki bu soo mën naa am jamono la ko jamonoom boo booba ni dëggu na booba ñaar ñu dëggu mën naa nekk waaye léegi moom ñaar ñu dëggu bëriwul. waaw kenn ku dugg mën naa am ak keneen ku waaw ndax ma ma ne ah man de man waaw ñu ànd lu yàgg ndax sa sa sëñ as jaxate dal ko yàlla dolli ak dëgër ak gudd fa rek wér saa wuñu saa ànd fa moom dem mu naa ne yéen de da ngeen mel ne àllasi nag amunoo ma sëgg ci ma sëgg ci nopp si sëñ Fallou Ndiaye ne ko waa miru sayxaat doyut de si nag amunoo doyut amoon na loolu amoon yi ko gëm seytaane amoon na la de ma ne ko wax mi lu say xaat war naa ko waay yoon yàlla yàlla fekke na moom ñu ànd ànd boo xam ne démb ci wax naa ko ca jataay ba ndayam jaaroob xay si ba mu takk lu lu jóge ci mbuum sëñ Tuubaa laa ko jox mu def ko ja maam fa samba ma ko joxoon ku def naa foog nga ko jënd naa ma diin mën a war a askan kurus gu rafet 86 dencoon ko fonk ko lool ba mu ñëwee ma ma génne woon ko rek mu takk ci sa sa sama yaay la la koy jox ma xam ne man amu yaay mu jox ko ko. sëñ Mourtala mbindum loxoom lu ma jox mbindum bi xati yeddi yi pour que danaa ko naa ko jox ko ab secret démb wax naa ko. sëñ Sonia bu secret bi xat ci di foto bi naa ko jox ko waaw ndax man ànd bi ëllëg a tax lu yàgg yàgg dama bëgg si gi moo tax. daa daan daan daanay kàll naan boo boo boo te sekk boo fel toog ñaar ñu ci mbedd kenn sëgg kenn ko siggi maanaam ku ku fi kiwutoon démb du xam lu ko waral man man nag dama bëgg siggi jo jox naa ko teraanga yooyu. mbokkam bu bu wàccee bi liggéey wala nangamam wax ma ko ma jël barkeelu yóbbu waaw loolu lañ seqoon ba ci magal gi rek kon taarix bu baax boobu lañ seq kër maam jaare gi ñëw na toggoo ci yu bari kër maam jaare gi yaa ciy dugg Abdul Fatah Guèye maa ngi koy maa ngi koy nuyu bu baax lakkam nga ba mu lakkee wax naa suñu Fallou Ndiaye ngir bëgg ñu dem ca waaye ka kakkanduwu ma te man nag Oudou Fra gi maa ngi ko xamee ci Fallou Ndiaye xam naa loolu it maa ngi koy leeral waaw waaw xaw ma lu ñu sëq man waaye man de man yërëm naa ko ca lakk ga lool bëggoon koo gis woo naa ko téléphone bokkam laaj naa ko mu ne ma amul kay xanaa boo ko waaye doy na waaye man li li ma bëggoon mooy dem gis ko ci xaw ma ko nag waaye xamante li tax ma bëgg mu faa dem mooy jëfu jum ñu jëfal un million cinq cent lebal nañu ko magal nga xam ne dañ ne kat si Sifal Ndiaye da te ñoo def ay barkeelu de jaay ko ci magal gi. mu mu lebal ñu ab machine photocopie la ci ànd ak un million cinq cent la bañ jaayee nuñ ba noppi amuñu neuf cent nagam bii la ñu am. nga ne moom njëg li mu jox sax amuñu ko far waaw ndax yow jur doo jaay da ngay war a barkeeloo koo jox mu jox la ñaar fukk wala wala dërëm ah loolu la. magal ga sol naa dara ju weex laxasaayu di wër Tuuba Daaru Minam lay jóge di dox ba ca Daaru Xudus di ko wër. kat suñu manaar xam ne mooy mooy suñu xilaafa gu mag ga taalibe yi ne fa ba ba ma fay dem damay dox ba sama tànk bi new yi ay pes wala so tànk bi ma koy jëri waaw waaye waaye ma ne ba seytaane la regal ndax ma ne kat tànk bi new yi na ko ko naata tuguma may wër ma may wër di wër sa sa sa sëñ Madlo Ngabou ba ba demee këram daa tiit ni ma gisee bu mu tilim laa sol ah sëñ bi sa daal daal di kii ah man de maa ngi nii sa sëñ Cheikh Aliou ba ma fa demee damaa jox ba noppi ne ma nag lii nag sa sa sa sa adiya jaaxle Rawdu Rayaahiin ci guddi gi magal gi ma dem fa maa ngi laxasaayu tilim am na kilifa goo xam ne bi ma ñëw sukk fi moom xam naa daa naal am góor jaay la xam naa ma ne ko ma ne ko ci waa kër moom jaar gi rek ñoo yolwaan mi ngi mi ngi toog ak sëñ Mamour mu tàng sama sama kaw waaye yow nooy fekkee nit ci mbedd mi naa ko nangam ma ne ko ma ne ko xamoo ma de laaj ma sa sa sëñ Mamour sa sa sa sëñ Mamour daal ne ko sëñ kokki bàyyil ma ma ma joxe la daal di génne ñaari junni jox ma mu ne ah ma kenn ma ne ko baax na damaa xamul rek ku la xamul ku nekk day woye wala la wax ñu nekk ca ca ca noona di yelwaan di yelwaan dem naa ci kërum njaayeen keroog ab yor yor magal gi maa ngi xiif a xiif a xiif bu ci la maa ngi xiif a xiif a xiif ñëw sëñ bi xelal ma kaasub am njaayeen ab sëñ njaayeen foofu xelal ma kaasub café ba mu fees may naan naan tuuti rek mu ne ma déet fii moom kenn du fi desal ab kaas te te ku xiif maa ku xiif ku xiif ku xiif ma dama ko bëgg jox kaas ko waaye dama koy noonte man noppi mu ko ma kot koti saqub xaalis ma ne ko de kër bam jaay gi de mi ngi ne rek soo sa kër gi rek boo téenee gis ko mu ne ma man du ma téen waaye ndaw waaye xaw ma di xam nga xaw ma man ma yaru rek mu kot koti génne saqub xaalis ba xale bu fa nekkoon ne ko xoolal ma génne ci aw aw ñetti wér jox ma sëñ Fall Diagne dal na ko wo woo na ma ne ma daa am ko ko woo xaw ma lan 28 mu jël taxi dem waajee jox ko ñaata xaw ma ñetti wér dégg nga de te taxi la jël xam ne ñu ñuy wër di yelwaan yelwaan meew yelwaan meew muñ jox ko ne yi marché Ocass daa dañu xëy Abdou Khadir man ak Palu Ndiaye Abdou Khadir Mbacke di di dox ci naaj wi daa dañu daa dañu jógee Daaru Xudduus di dox ba 28 ma ma nga see bu ne ñu dem fa. Kab Fall keroog bañ fa demee si si si Palu Ndiaye ne ko ah mënoon nañoo dund kon ba faatu te doo ñu gis ci sa bitig bii waaye daa am loo xam ne dañ koy liggéeyal sa Sëñ Tuubaa bu ñu la waxee digtal nag ba nga dégg ko su bis pencee duutoo amul ay wax wax wax ju am sëriñ la dem nañ fi Ndakaaru maag sëñ sëñ Fallou Ndiaye ñoo ànd ñu ñu ñuy wër Sandaga Lamine Guèye ñuy wër magasin yi ñu doon ci benn magasin waa ji daal sëñ bi ne ne fa di ñu wax loolu laaj ñu laaj yu jeex laaj ba sonn ma ne ko sëñ bi wax nañ la ne dañuy liggéeyal yàlla boo mënee def boo mënut ba mu ne waaw man kay maa ngi lay déglu waaye yow moo koy xam naa ni ni ni doo nga mën a waxee ma ne ko ma ne ko jeex na foo maa def soobu ba yar na noonu wax nañ la li ñuy def noonu nga xam ne moom pëstéef booba moom kay sëñ Sam Bousso ca ca ca ca kii ba ci raw reen mu ne ma xanaa yéen da ngeen a bëgg a yeesal moritu Bakke Kajoor ga waaw ma ne ko alhamdulilah photo ba sax incha allah mu yor na ko de photo ba photo ba ma ci photo woon laxasaay ga waaw mu ñu ne ca loola muy metti lool nekk naa ci ci ci jumaa ji ajuma xam naa ñi ngi ñi ngi bayaan julleeguñ Palu Njaay ci woo ma téléphone dañ laa soxla ci ci kër maam jaara gi de ma gër jumaa ji ba ma juddoo ba keroog keroog laa ko mos a def waaw ndax ndax ndax damay jàpp ne jëmbul liggéey la sëñ Bamba ji moo gën a wóor ci man daa gën a wóor jàmm yàlla gi nii julleeg woor yooyu baax na sax waaye daal wóoru daal wóoru wóoru da si waxoon sëñ Tuubaa li tax ànd ak moom gën a wóor soo defee sa liggéey ci liggéeyam suñu borom moom du xool ab liggéeyam yow kooku sa liggéey kenn du ko seet waaw yii ma daal dem man waaw sëñ sa sëñ jiili sëñ jilim sëñ saariwu xaw ma ko woon moom na xam ne na xam na ma damaa nekk ci jumaa ji di julli ajuma ak ak ku ñuy wax Moussa Joxaane waxtaan am na man de si sa si sa njiiri lay dégg soxla nañu ko de ndax duñ kër gi ñu lay woon léegi ñu ngi ñuy bëgg a génne. àgg nañ si jaxali woo naa ko ne ko may ñu émission ñu ñu woo wuy juri xale yi ndax léegi kër waa ji nee na maanaam léegi day jël kër gi. ndax ay la 15 la lañ daa fay xam naa dara maanaam yàqatee ko wax ne ko ñi xam naa jël ñu dara. mu ragal sëñ si Aliou wax ma ne ma waxal ak kii naa fo for tool njëriñ ma daal ah li li li noonu daal lii ñuy wax bu dee dëgg la danañ am fenn ma ne ko baax na. ñu dem ci ci ma dem ci wàññi noonu Moussa Diokhane lii lii ma ne ko ma Moussa ah man sëñ bi xam nga ko mu sérieux mu ne ma nga ne ma dem nuyu ko Moussa Diouf ak ko kii mu ne ma man kay xam naa la maa ngi lay dégg jàmm. ma ne ko wax ko xese bi am dañuy bëgg a génne wax na ñaari musiba toog fa mu ne ma ñaari ñii de ñoom laa aal kër sama kër ga fii ci xaw ma ci ci wetu kii ni ko waxee ndaamatu nee nañ ma day màggal ga danañ ko indi danañ ko jox buñ ma ko joxee ngeen jël ko màggal gi jot ma ñëw ci ajuma séenti ko daal di dem mu ne ma ñii ni kat caabi li andi lépp ci wàññi la lépp sëñ jiili mu ne ma man ngeen faa ne ba saa bu leen soobee kon sëñ jiili kon maa ngi koy sant bu baax moom. yëmu ca di fa andi dugub ak lu ne bis maa ngi ndakaaru Sifal Jaay ci woo ma ne ma sëñ jiili ñëw na fi andi fi téeméer junni te booba maa ko woo tabaski mu xat amuñu luñ fayee kii ma moo ko di ko ah sëñ bi de xam naa de kër gi de am nañ kii soxla nañ dara ndax ndax ñi fi nekkat seeni bokk dañ leen yaakaar dara maanaam léegi nag xam naa lu lu leen fay mu xam naa ci xat na de li li ma yoroon kii naa ko ci waay baax na téeméeri junni la fa andi booba keroo ca keroo ca kër Cheikh Omar Badi yi booba la la aw xew lu xuma ndaje amoon keroo ma nga naan si Cheikh Badi ah sa mbokk mi de yónnee na ci kër ga téeméeri junni fi mu toll kon sëñ ji di moom ku am solo la jàpp na ci jàppin wu wu wu am solo wu am solo maanaam dana dana am ñu ma dul tudd ndax da damay bañ tiisati moo tax waaw dana dana am ñoo xam ne seen ñàkk tudd ga ñoom seen jëf am na ñoom jëf nañ Abdou Fatah Guèye moom jëf ji dafa ràññi ko am na mbokk moo xam ne jëfam ràññi ko na ndax bañ ko waxee ci biiram lu mu ñuy wax dane maay fay kër gi wut leen kër ma koy fay fay na ko weer ñaar ñett léegi ñu ñu ñu mujj ne ne ko li ngay jox kat ëpp na léegi noonu ci wàññi ko waaye ndax maa ngi moom minanti wuñ lool damay bañ tiisante moo tax waaw su sëñ sari ne woon na wali yu du tiisante nee na sëñ bi ko wax moo tax kon moo tax kon sëñ Fallou Ndiaye ko ci ci kon su su su tataarax nga foofu ci ci kër gi nga xam ne maanaa maanaa njël bi ngi métti ne moom neew moom dañ ko daa dañ ko daa wayaani moom sëñ buub ndajem xaw ma dongay dara ma dem fa moom nuyu ko wax ko mu ànd ak man ñëw ci kër ga ki mu àndal góor gi mu àndal si sëñ buub kero bi mu agsee moom xo xol yér yi dane jàng-jàng daanu di jooy moom moom moom xamatul lépp fu mu ne daanu suuf sëñ boobu daal ne man nga léegi kii mu ngi koy dara jàpp wax na sax digg nañu boobu sax oto ko léegi digg nañu ko boobu ne man wax ko ne ko oto man oto man moom laay jaay xam naa bañ demee bañ demee mu war may waat ne ma kat léegi soxnaam si nee na daa bëgg a ñëw seet si kër gi waaw ñu ñu dem soxna si ñëw nangam nangam xam naa nag moom daal xam naa moom nag la fa def moom waroon na koo ëpp moom waaw waaw waaw waaw moom moom dëgg yàlla jëf ji daal mënoon naa ëpp ci ëpp tolluwaayam waaye kenn ku nekk la nga mën nag fa sa xol yam fa nga ci ngay jëf ji waaw kay maanaa maanaa nag kon ñi nga xam ne ñu ñoo sosoon kër ga Paul Ndiaye moom man la man la ko jëkk wax moom ci leen wax man Abdou Khadir Bousso ñëw fekk ñu ci Abdoulahat Bousso waaw ak docteur moom nga xam ne moom moo waxoon ne moom mooy fay kër ga fekk ñu ci waaw. keroog keroog ok am na lu am solo keroog ba ñu waxtaanee jëm ci mbootaay googu nga xam ne ñoo ñoo yor xale ci ci Mbàkke wax nga mu nu mu tuddati ñoo ñoo ñoo yor xale. ñu ñu dem fa ngir consulter leen ba xam ndax kër moom jaar ku bëggoon tabax taxawal loolu noonu fooy jaar ñu ne ñu ah da ngeen war a am budget annuel maanaam nag yor gone kenn du ko jéem da nga koy man wala mënoo ko wax ñu kii daal nañ fi am nañ fi tribunal boo xam ne spécial ngir xale la waaw xale di ko fokk léegi Mbàkke nee na am na fa tribunal spécial boo xam ne xale lay lijjanti ñaari jàq parce que ñoo ànd ñoo jàq ñu dikk ci jaar ci docteur Niass promotion docteur Niass ca Ndaamaatu ko am solo yaa dugg fa mu wax ko ne ko ah gars yi di leen wax mu ne ah waaye nañ ko def yëfi doge caara nañ ko def nañ ko defee ni ko ma ne nga xam ne Niass moom ba ñu jógee Mbàkke noonu bàyyi woon nañ Niass moo ñu ci dugg dugg docteur Niass gars yi di dugg lu kii Niass jàmbaar la waaw meew mi ñu yorwa yorwaa naka nangam nangam dox dox waaw léegi kon ñes kon mën na cee bokk noonu docteur boobu mën na cee bokk noonu rufre gi waaye ñooñu ñoom dañ cee bokk nii waaye ci waaye nikku ñu di wër ak sonn moom dëgg dëgg dëgg dëgg man ak Fallou Ndiaye rek ñoom nu ñoo doon sonn sonn tigi Abdul Xaadir bu nangam Mbàkke léeg-léeg mu fekk ñu ci ab daa doon waaye ki nga xam ne moom bis bu set la moom daanaka guddi bu ñu woowee daana fa am ay dara su su fa accident amee Fallou Ndiaye man lay woo ñu waxtaane ko nuñ koy defee ba dara du seen man lay woo keneen bokk ci moom waaw nga xam ne moom nu nu ñaar ñoo ko saytu woon tigi moom ca ca ca coono ba ba muy ba muy metti waa xaw ma ñu ñu toog fi ab ay jamono sëñ laatum sëñ Fallou am ay gani ko ñëw fi ñu ñëw ci sëñ bi sëñ si Muxtaar ndax sëñ si Muxtaar jamonoom la jamono yi ndax ci mujjug sëñ kii mujjug kii la mujjug sëñ sëñ naati ah sëñ sëñ Baara mu joom mu joom gi la léegi nag suñu mu taal ñu dema demaat ko wax ko ko maanaam lu lu lu mën a bëgg a waxee foofu wax seen laat gan ñooñu mu ne leen am na am na daal ab référendum boo xam ne ñu ngi koy kii léegi daa bëgg ñu ñu seeti ko gars yi ñëw ay comédien ñu ñëw mooy secret house ñu dikk fa ñu xool ñu ne ñoom ñoo koy tabax dara ñu wutal projet boo xam ne day mën a yor kër gi ay fuur ak lu ne léegi nag am na jamono boo xam ne ci ñoom lañ koy jaarale sëñ laat amoon nañu ci réeroo man maa ngi moom sëñ laat ak jamono ba mbootaay googa loolu moom kii wut waaye nag sëñ laat su su su ma demee ba ci ñi ñi may jiggulu ci lay bokk ndax ndax man pastef bi bi may doxee mooy tax mën naa fiyoog nit nit ci dara fekk ne man kan damaa gën a xam adduna rek waaw sëñ laat nangam ñu tabax ko tabax ba bañ ko tabaxee lañ waxoon ci fuur ya yooya kiiwut amut am na nag aw doxin wu ci am woo xam ne loolu dañ koy denc ci mbakkar fe feggu lay doon ba ba ba kafe fekku ndax ay bagage kenn du ko génne lépp yulli lépp ndax bi sa tax bi sa tax kon kon ñu ñu ñu dox ba alxidmatu italien juddu ay moodu moodu yu jàmbaare yu jàmbaare maa ngi leen di ko bokk na ci ñi may jéglu ñoom jàmbaar lañ lool daa yónnee weer wu jot ab lim ci xaalis parme wu ubbi fa ak ngootaay waaye nag ñoom am na benn jànkatu tubaab wax na ko si si Fallou Ndiaye am na kii kii wax ci seen tur ma ne ko kii ma ne ubbi ab groupe ci ci whatsapp ni muy raisonné ni xel miy doxee ma ne ko kii kii de benn jànkat la wala yàgg na ci lii ni xel mi xel mi yuu xel mi dafa ñaw xam nga nit nag boo bëggee noppalu dafay wax rek jàpp ko ne nit la ma ne ko ah sëñ bi kii nit la moom di la de wa ñoom léegi ñoo ne la dañuy laaj ñoom léegi xaalis bi ñu joxe ñoom ndax da ndax daa ëpp wala daa matut su dee matut lan lañ soxla bu dee manqué na lu ci des fuñ ko dugal ah kooku jànkat la yé jànkat la loolu maa nekk loolu maa nekk suñu Pape Ndiaye nangu wut ca école ba man ko xam naa ko doo ko laaj xaalis xaalis moom xaalis saa boo ko laajee day mer boo ko laajee xaalis rek mu ne da nga maa wulul tontu lii moom gàtt na da nga maa wulul ma ne ma ne ma ne sëñ Fallou Ndiaye ñii waa Italia alxidma Italia duñ say donga yii di foo leen yii di foo leen da ñoom ñoom seen seen nañoo doxee leen neexee bis bis aw waxtaan woo xam ne jot naa ko ci ñoom waxtaan wuñ defoon ñoom benn waaye daal di wax ne man de si si si sa jub kokki daal mi ma gis ci biir jàpp naa ne kon lépp loolu lu nekk dëgg la wax ju rëy la mu téye ko. sëñ Abdourahmane Niang bàyyi mu mu Muntaxa Niang suuf suuf si ñu Muntaxa xale bi ne fii suuf suuf suuf sañ ñu joxoon sëñ Musaa Alaaji Bara joxoon ñu ko ci allié te mujj am ci sikk keroog ba ñuy teg teg xeer wa moom dafa yéex a ñëw te subaar la ñëw. naa ngi tàng jër tàng bi mu wàcc oto bi dafa tàng jër ma nuyu ko mu mu ne man de lépp lu si mos a jóg kokki nekk ma jàpp ne dëgg la leeral bi loolu loolu tax se se se man ñang bëgg naa mu dégg lii moom nga xam ne man kat léegi noppi naa dañu mu caa génn it nag dana leer waaw kon doxin wi kon ñu daal di kii kon xel xel ma Italia ñoom laaj. bi bi may exposé sama téere boobu jamono jooju Fallou Ndiaye def na ab commission ñun nit ñi bëriwuñ ndax ndax Fallou Ndiaye da ko ubbiwut kenn ubbi ubbi lu ko mbooloo mi. kër maam Diarra ndaje mi ñu defoon daaw jéeg wax wax naa ko fa waaye nee nañ ma jàllale ko daa wax gaa yi neen bu leen ko jàllale. wax naa ko lu tax ni kenn ñëwut lu tax xilaaf gi ñëwuñu na nañ leen ci boole waaw loolu moom danaa ko tawsiyaat yi danaa ko ci. gën a leer xëy may italien ñoom ñoom bu ñu laajee wax suñu soju kokki nag xaalis bi fu muy dugg ma ne ah laaj leen sëñ Fallou Ndiaye man xaw ma xaalis bu jarul ci man amul contrôle man amul contrôle compte banque gi bu ñu ko ubbee ba ba nii moom képp ci am accès dénk nañ ma juróomi nit yi nga xam ne yoroon nañ ko juróomi nit ñun juróom maanaam léegi kenn ko jox la ci ab parti loo war a saytu man dañ ne woon yaay saytu alali kër gi. Fallou Ndiaye moom da day ñëw di ma dicté naa ma nangam moo fi ne. donc ah sëñ bi compte ga nag maa dire dara du dugg na fa waaye du la wax nangam man amu accès léegi man may ñëw di tari li ma te kat boobu ñun juróomi dong lañ damay taril. damay dicté ma ma ma bind ñëw tari ko ma ne sëñ bi mag laa nag mag laa mag laa sëñ bi ma daal di ma ne ko sëñ Fallou Ndiaye rek yaa ma waxoon ne ma saa sooy bàyyi nag ma ko wax mayit ma ba man de wax dëgg yàlla lii moom mënatuma ko moom commission mënatuma jiite commission bi waaye de ma daal di di lay nangam waaye moom bàyyee nangam nangam ah xam nga nag as gor de moom laa ma ma koy baata ma koy yéef nag. waaw moom ko kon de xam naa ne kon moom damaa def na waaja daxilu arab Omar ibn As defoon Abu Musa al Ashari yaa yow kat yow Abu Musa al Ashari yaa ma jiitu ci islam mag nga sama mag nga sama nangam nga léegi bu ñu demee ca kii ba jëkk la wax léegi nag li ñu wax mooy lu ñëpp folli nañ suñ kandidaay folli naa Ousmane folli yow nga folli Aliou Abu Musa al Ashari daal doon ab ab kii nit ku baax rek di gën a waaw waxtaan bu juboo léegi man folli naa Aliou Obras daal ne man de fal naa Ousmane adduna daa metti booy dund ci ay mabadi ay principe da ngay da ngay dee wet waaw loolu la moom ko xoon de defu ko moom defu ko ah defu ko de wala boo déggu ma def ko xanaa ko te ndax dinaa ko nan bàyyi nun kat kër maam jaay gi nag dañoo war a jéggi liggéeyal Sëñ Tuubaa lañ ci jublu woon léegi nag da da daa war a génn ci suñu loxo dem ci yeneen loxo nag xilaafa gi dañ ko war a jël xilaafa gi ndax du alali Sëñ Fallu Njaay alali alali noonu murit yi lañ woo woon jullit yi woo leen ci turu sa sa Sëñ Bàmba kon kon kon kon moom dafa war a génn ci suñu loxo force moom force la moom nag xam moom nee na moom du ci génn la ma waxoon waaye moom nag ah baax na jot naa ne moom dana ci génn moom ndax loolu mu mut a nekk moom waaw loolu kon moom xel ma italien ñoom daal ñoom taxaw nañ ñoom kat ginnaaw ñoom xamuñu xaalis bi fu muy dugg ñoom mënuñoo dem Fallou Ndiaye daal di loolu nag jamono yi nga xam ne maa ngi exposé soo soo soo téré ba ay bis ga man amu jot commission bi groupe WhatsApp bi ñu defoon man bokkuma ca bi gaa yi dem ginnaaw bi lañ ma ko wax waaw ndax xam naa ne ñoom bu dee maa ngi ci man du ma nangu mbooloo mu mu nosu ay muudu muudu bu la jox ab téeméer par weer baax na téeméer bu sax saako saako ceeb bu sax waaye question benn la xaalis bi fu muy dugg si si Stéphane Ndiaye ne déedéet moom kenn du ko wax moom xaalis moom doo ko tudd moom école bak lépp boo xaalis doo ko tudd ah xam nga nag moo amu si waay moom mën nga koo def noonu moom waaye nag mbooloo mbooloo ay nit ah sëñ bi loolu nag te ñoom sax xamuñu la ñoom ñoom xamuñu la for waaw waaw waaw daal kon loolu moo tax waa akilma italia ñoom maa ngi leen di sant ñoom sama xol yéen ñaanal tawfeex ju dul jeex seen liggéey ba gis naa ko lool lool lool lool lool lool sant naa ca lool soxna ami sil la soxna ami sil la moom sa sa sa sa sañ soxay boobu sama mbokk la sëñ la sëñ Abdoulaye Naati sëñ Saal Dieng lañu ñu ànd ma ko ñu ko jay man lañu xam moom sëñ Saal Dieng bàyyi mag si manaar wala maa ma si manaar amoon amoon nañu kulëre ñoom noonu kii ñu def gaaral ko ko moom mu ne leen mu nañu dem leen ca son ami si la ko ko mën a sonn la ci yooyu ñu dem wax ko mu ne waaw waaw daal di big lool ànd ànd ak nun ci liggéey ba soxna am sil mooy ndey si sëñ Mourtala ak ki ñaan daaw daaw la xanaa daaw ndekete ñoom sëñ Fall Jaay waxuma ko ñoom dañoo beru ubbi seen groupe whatsapp soxna am sil nee na ma Fallou Ndiaye Cheikh naa loo ak Ilimane Niang mu ne ma Ilimane Niang de moom lu baax dong la wax moom keneen ka moom xas ko ñaar ñu ca des kenn ka ko xas soo am si li moom nee ma damaa ñëw ci bis bi dangam nangam nangam loolu dama koy téye mu nekk Bakar Fem soo am si li moom dañ ko génne. nga ne mooy jàmbaar ji dëgg dëgg dëgg moom maa ngi koy sant wuu jàmbaar la moom jàmbaar la nee na ma Iliman Ñang sant naa fa wax li nga fi indi ci mbooloo nangam nangam dàq nañ ko. kon kon kon boo xoolee ñi sosoon yëf yi yëpp dem nañ moom Fallou Ndiaye ci des. Abdou Khadir Mbacke Abdoulaye Mbacke man ak Abdoul Fatah Guèye ñooñu moom ñoo doon acteurs yu mag ya dem nañ Fallou Ndiaye ba ba génne na ma wax naa ko démb génne na ma ca groupe ca groupe ba ndax ndax ren jii gars yi def nañ bisub kër maam Jaara gi yëguma ko kenn xuma ko damaa ubbi groupe bi rek gis ñu naan xuma démb xuma ko démb di wax la xew ci xew xew ma woo Cheikh naa loolu ah yéen seen kii bi muy naka nakal ma ko man ci yéen la ko déggee ma woo Fallou Ndiaye mu ne ma dañ ko ci woyofal woyofal ko ba ba yëguma te ba sax la ko jiitu sa sa sama benn rakk Moussa Seck moo ma yónnee invitation ba ne nekkat dañoo juum yónnee ma ko waaye beneen kii lañ ko yónnee ma ne ko fëti ko bir ko ma ko ci WhatsApp bi jox ma man yëgaluñ ma ko Cheikh naa loolu daaw ba nee na ma fu ñu dem de gars yi nañu ana ana sëñ soo jub kokki kon kon loolu kon yaakaar naa ko kon bu ñu doon finalité maanaam yëf yi nag mooy rek bëgg naa man moom gis nañu ma ci moom jeex na léegi ñi nga xam ne ñoo fay di def seen alal maa ngi leen doon ñaan xilaafa gi keroog wax naa ko si ca ndaje moomee wax ne wax ja dañ ko dagg xilaafa gi na na jël jëf yi su su ko jëlul jëf yi dara nax say de teg ko ci ay loxo yu mu wóolu moo xam sëñ sëñ sëñ Fallou Ndiaye mi mën naa bokk ca njiit ya waaye nañ ko saytu. compte banque gi 2013 ba tey xuba 2014 ba tey mbooloo moomu nañ dem seet compte ga relevé ko compte ñu xool ko alal ju fi dugg ñaata la moom bu leen mënee layal layal leen bu mënta layal ñu xam ko rek waaw. am na benn rapport boobu boo xam ne ca kii bi gendarmerie bu bu lan bu bu bu Touba naa ci Touba Belel bi. Sëñ Fall Ndiaye nun nun ñaar ba moom la ñu woo mu ànd ak man bañ demee ñoom dañoo dugg ca biir man ci biti laa ne ñu bind ci ma rapport ne ne ko léegi rapport bi nag dañ la jox jox ab copie Fall Ndiaye lañ na ko ba tey ana copie bi nangu caa wax dara. dem naa ci seen kër ay magam bëgg leen koo tàmbali leeral gaa yi da daal di jóg baax ko kon maa ngi jégalu ñii sëñ Abdou Lahad Mbacké ak sëñ Abdou Khadir rakk sëñ Fallou Jumaa dañooyu ma maa ngi leen di jégalu ak sëñ ak sëñ Abdou Lahad sëñ Fallou maa ngi maa ngi koy jégalu soxna Ami Sylla noonu maa ngi jégalu ak ak Fallou Sylla Dramane maa maa ngi leen di jégalu ak Abdoul Fatah Guèye moomu maa ngi koy jégalu. ñooñu nga xam ne jombut daal gàttañ lu naa ci ci seen ak xam na ngir nag suñu Fallou Ndiaye tax de maanaam léegi topp ko rek lu mu wax ma ne waaw lu mu wax ma ne waaw tax na ba ñii ñëpp seeni jàmbat daw ma ko déglu ko kon maa ngi leen di jéglu kon ne dafa mel ne kër maam Jaara nga kon léegi nag waxuma kenn nag ne ko nag kër maam Jaara gi ndax tas ak bu la ko joxaat dara déedéet dama bëgg daal leeral ma daal duggoon naa ci nii laa ci duggee woon génne nañ ma démb bu leer na wax naa ko tontuwut génne na man génne nañ ma as gor nag am sëñ kokki nag maanaa adduna xanaa yàlla ba mu dox mukk nag ba muy wàcc di di ko lekkat kooku moom mënta nekk moom ab dof ab dof rek wala ku ko xamul may kan moo mooy dikk ne mag faaw nga ñëwaat si mu taxaw bu ne woon kaay nga ñëwaat jiitu ko ma ne ko sëñ bi diire du mënta nekk man am sëñ kokki la sëñ bi taxaw xam na ma xam na xam na xam na xam na sama baay moom sama baay bokkoon bokkoon ci sëñ ma dem di jàng xam na ma moom du ma ko wax keneen ku ma ko waxee dama xam ne ci xaw ma kon daal kër maam jaara ngoog yàlla na sedd ci ci ci loxoom lool moom it oto yañ fa indi woon yëpp oto yi moo ci daal doxum ay soxlaam ba léegi si oto kër maam jaara ci lay dox ko su su ma masaa wootee sëfër bi ngir mu yóbbu fenn sëfër ba bisu bisu mu ne ma sëñ Fallou Ndiaye nee na ma déedéet waaw kon waa liggéey baa ngoog bu dee nag la ma ci doon def ngir yàlla la jot naa ko nag moom njëlbeen ga moom ngir yàlla dong la moom xam naa ko xanaa nag mën naa biir gi ginnaaw bi am leen dugg ci kon yàlla ñu yàlla jéggal dimbale ñu ko daal kër kër maam jaara ngoog asalaamaaleykum taala wa barakaatu ak xanaa gàpp man nag man nag damaa doon dama doon xalaat lool ñu ñu ñu jéem a tas kiis fan la gàgg bi ne maa jéem a seet daal fan la gàgg bi ne jombul man naa bu ñu ko xoolee dañ ko gis xam naa daara ji moom ni niñ ko tàmbalee woon am am am yolaan moo metti ba sax gaa yi dañu tooñ naan yéen de da ngeen a bëgg a dekkal mu rëccug ci yéen jolof ja ñii naan da ngeen a bëgg a dekkal mu rëccug mbakke ci kajoor ga muy lu méttee métti waaye nag. mënatu ko Mbàkke Kajoor ga mu mu mu mënatu mënatu mënatu ci yéen ja war naa am résultat man dama bëggoon daa am proposition boo xam ne dama ko bëggoon a def ba xam maanaa léegi ku mel ne man ak Sëñ Fallou Ndiaye maanaa commission bi commission nu mu tuddati président bi muy juróom muy man ak sëñ Fallou Ndiaye meeg sëñ imaam Soxna Lo docteur Ousmane Gueye ñoo jiite liggéey bi noonu ci kaw man ma daal jottu naa ne waaw ndax du ne nit ñi li tax nanguwu ñoo joxe li tax nanguwu ñoo bokk léegi ku yaataloon conseil bi mën naa am ku ku ku ku ko yaataloon ndey jiim yu am fa place maanaam opérateur économique yi am am ci place moom muy partenaires yi ñëpp dugg rek ba xam léegi jombul ñoom kenn ku ne ci ñoom la ngay dute jombul nga mën koo xam moom am na am na moom blocage boo xam ne moo tax moo tax moo tax borom xaalis yi nu nangu ñoo joxe moom Tuubaa moom borom xaalis joxe joxewuñ na nangu ñoo jo- joxe ndax si ñàkk joxe gi mooy ña- dañoo xamul walla yaakaar naa daal loolu jumbul bu bu ñu ko yaatalee yaatal yaatal mbooloo mi nga xamante ne léegi su boobaa léegi ñëppay am accès ci information yeeg lépp ñu di ko xam jombul xanaa dama yaakaar ne xanaa xanaa daal xanaa daal da danañ joxe xanaa dara yaakaar naa ko ndax gag bi am na moom gag gag bi am na gag bi am na am na ñu ne man ñi may wo ñi may woonaa ma da- da- dañoo bokk bëgg a bokk ci yëf yi da bari na jombul kon ñoom da da- damay kan daal am na luñ bëgg a xam am na luñ bëgg a gis loolu man jor jor tuttu naa ne jombul xanaa su amee wa- waxoon naa fi Cheikh Abdou Bali yàgg na ma ne ko si Cheikh Abdou Bali man daa bëgg comité bi comité magal gi jël kër maam jaara gi noonu noonu expérimenté nañ ko ba mu leer da da da ñoon mu mu mënta nekk fexe nañ léegi ba mu mën nekk léegi mu ngi nii moom léegi yéen jël leen ko sa sa sëñ Ahmadul Moxtaar mu xalifa Daxurus wax naa ko ko ñaa ko yéen dañoo bëggoon ngeen jël xilaafa gi na na jël kër maam jaara gi expérimenté nañ ko ba xam ne mën naa nekk léegi yéen jël leen ko doxal ko fi tollu nii yaakaar naa jumbul de- defoon ab dossier bu bu bu mag dem ca dem ca sëñ Muntaxa ne ko wat ah yëf yi de mi ngi nii xalifa bi Sëñ Tuubaa daal si Sëñ Tuubaa moom moom kër gi nun nun daal ñoo la koy saytool boo bëggee wàcce kenn wàcceel boo bëggee yéegal yéegalal ndax kon du jombul boobaa Sëñ Muntaxa moom mën a wut ay nit boobu moom it dugal ci biir ñooñee di di ko wax xam nga sëñ bi xam nga sëñ bi ay mag lañ maanaam tey si Sëñ Muntaxa bëgg na am lu mu xam loo xam ne du la ko laaj du du du naan sëñ sëñ imaam ñankat nangam bu amoon am diw sàngam am xaadim jóob ci biir yëf yi ju jumbul xaadim jóob di dem di ko leeral lam xam jumbul ndax kon du gën a sawar kon yaakaar naa daal ma daa ma daa gis naa am na gag yoo xam ne warees na ko jéggi maanaam wa- wa- ndax ndax nag kër gi kër gi wërta tënku ci nun juróom ñii waaw bu ñu faatoo nag waa saa bu ñu faatoo nag léegi nag kër gi fu mu jëm ah yàlla na yéex yàlla na yéex waaye dañuy faatu moom xam nga moom yéex ak yëpp jëm dañuy faatu moom te kër gi daa war di wéy ba àdduna tukki procédure bu yàgg boobu loolu moom loolu moom mën na tënku ci ay nit man ak nangam yow nu ñëpp ñii mu ci juróomi nit ma insha allah dañuy faatu moom bu bu ñu faatoo nag fan la fan la kë- kë- kër gi jëm war nañ koo xalaat daal tegin woo xamante ne ñëpp danañ ci gis seen bopp ndey jiriñ yi fi ñu toll ñoom ni ni ñoo sonne bu ñu bu bu ñu nekkoon ci conseil permanent bi dekan dana gën a am njariñ ci ñoom dana gën a am solo dana gën a dana gën a leer ci ñoom danañ gën a sawar nangam nangam soxna ami sil soxna maam awa mbakke di xam lépp di am xalaat di di di ñu jox